salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi béti mi théâtre ku ko xam ne ko mu def attention garant bii nii turu mun sir ñes lay wuyoo yaa ngi dégg daf ma message jëluma ko wuyu wuuma ko parce que man du ma wuyu ko nee na mun sir ñes la mais du mun sir ñes jël ay photo yi biti nekk ci oto bi taqale ko di kattante ñëw ne ma biti la daf maa yore samay affaire danoo séqoon man ak moom hôtel ma bëgg nag vidéo yi nii nga publier ko bu ma ci feeñ mu woo ma appel ma enregistré lépp téye ko teg vidéo yi ma envoyé monté ko lépp maa ngi ko téye tak man duma man xamee naa original yàgg naa ci aar bi ma ne ko du ko def ku bon la kii ku iñaan la ku soxor la maa ngi numéro téléphone maa ngi lépp na ko bitti pelent na katt ndeyam ci kaso bi ñi ay doomu xaj dëgg lan ba mu xamee ne jàpp naa ko enregistré ko nag mu may génneel ay reen ma daf may liggéey ak sëriñ ndaak nangam nangam bu ma ko publier sa dëjjaw nday man kenn damaa mën a jaw damaa faale sëriñ man kenn damaa mën a liggéey gaayen baa ngi nii béti la salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi béti muy théâtre ku ko xam ne ko mu def attention garab bii nii turu mun sin ñes lay wuyoo yaa ngi dégg daf ma message jëluma ko wuyu wuuma ko parce que man du ma wuyu ko nee na mun sin ñes la mais du mun sin ñes jël ay photo biti nekk ci oto bi taqale ko di kattante ñëw ne ma biti la daf maa yoral samay affaire danoo séqoon man ak moom hôtel ma bëgg nag vidéo yi nii nga publier ko bu ma ci feeñ mu woo ma appel ma enregistré lépp téye ko teg vidéo yi ma envoyé monté ko lépp maa ngi ko téye tag man du ma man xamee naa original yàgg naa ci aar bi ma ne ko du ko def ku bon la kii ku iñaan la ku soxor la maa ngi numéro téléphone maa ngi lépp na ko bitti plainte na katt ndayam ci kaso bi ñi ay doomu xaj dëgg lan ba mu xamee ne jàpp naa ko enregistré ko nag mu may génneel ay reen naan ma daf may liggéey ak sëriñ nangam nangam bu ma ko publier ak sa dëjjaw nday man kenn damaa mën a dëjjaw damaa faale sëriñ man kenn damaa mën liggéey gaa yéen baa ngi nii ah. béti la euh,